ah di leen euh, nuyu di kontaan ci teewaat fii bu ko defee rek ñu waxtaanaat ci wàllu actualité ñaareelu pàcc bi du ñàkk ñu ñëw ci li nga xamante ne euh, moom la ministre de l'éducation national fësal mu di modalité yi nga xamante ne tënk nañ ko ngir xam euh, ñan ñooy jàll classe supérieure ñi nga xamante ne moo soxal classe intermédiaire yi bu ci ko bu ci kanamee lay doon gannaaw 20 bi ñu daal di fiy dalal Abdoulaye Ndoye mi nga xam ni mooy secrétaire général bu CUSEMS xibaar yi it ak bi ci wolof. ci kanam tuuti lay doon pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko rek programme bi nga xamante ne euh, jamono ji ñu bëri ci la ñu taxaw lépp ngir fexe ñu daal di euh, suqali lii di tourisme bu euh, Sénégal moo tax tey ñu fi dalal Cheikh Medoune Gueye mi nga xamante ne mooy secrétaire général bu syndicat bi nga xam ni moo yëngu ci wàllu agence de voyage ak tamit tourisme ci Sénégal ñu yaatal rek ni nga xamante ne juñu naa ko léegi mu soxal ouverture frontières yi ndax it nag euh, tàmbali waat nañ dugg ci yenn vol yi ci réew mi ñu xool it ñoom it seen taxawaay ak it lan nga xamante ne moom la ñuy xaar jëm ci fànn boobu sëñ bi ngay dalal jàmm ci plateau. di leen sant leen si um, yaatal bi ngeen di yaatal nu fii pour ñu wax askan wi. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane euh, Diagne. waaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar soxna Aram di nuyu téléspectateur télévision Futurs Médias di dalal aussi suñu mbokk mi di sama turando di Cheikh Gueye ñàkkul nii tey ke da waroon d'accord ma def benn cheikh un kii deux comme ça ma waaw mu ngi noonu daal boo ci def rek baax <laughs> <laughs> mu ngi noonu alors <laughs> ah, monsieur Guèye ñëw ci li nga xamante ne maa ngi ko doon sànq balaa tijjite frontière hmm. mais dañu am période boo xamante ne dañ ko toog mën nañ ko dippee période dakal mi ndax liggéey amul dara amul woon ndax it euh, frontières yi dañ leen tëjoon tey boo ñu doon defal tey ab euh, nat ci li nga xamante ne nekk na ay loronge yoo xam ne dal na ci seen kaw ci lan am doon. jërëjëf Aram euh, nuyu donc euh, yi ba pare nuyu sunu noppandoo yi mooy sunu kan yi liggéeyal ñu xam ni maa nar a wax ci seen tur. Mhm. te di ñaan euh, lu ma fi wax rek mu doon loo xam ni dina leen neex mu doon bañ a nekk safaanu lu ñuy xalaat ak ñu ko xalaatee te mu nekk loo xam ne dina jariñ askan wi. Euh, li ma mën a wax ci tourisme bi ñëpp nangu nañu ni feebar bii ñuy wax coronavirus. Mm. secteur touristique mooy li nga xam ni moom moo ko gën a yëg ci secteur économique yëpp donc moom je crois que askan wi yëpp walla àdduna bi yëpp sax nangu nan ko foo dem ci àdduna tourisme lay wax ni moom mooy secteur bi gën a yëpp feebar bi. ni mu ko yëgee mooy euh, ñun dañu taamu si dalal ay nit ay gan. Hmm. di leen toppatoo pour ñu tukki ay leen toppatoo pour dalal leen si ay hôtel ñuy wax réceptif. et bi feebar bi amee li nu constaté mooy ni mesures yu ñu jëkk jël yu autorités yi jëkk jël mooy tëj frontière. boo nee tëj frontière loolu mooy kenn dematul kenn eh, ñun comme suñu liggéey moo doon di jaay ñi nga xam dañuy war a ñëw wala di jël ñi fi nekk di leen yóbbu leen dalal feneen te ñu jël tëj frontière yi ñu war a jaar hmm. muy jaww ji muy si suuf ndax tëj nañu frontière terrestre yi si biir dëkk bi si boppam réew mi sax dañu tëj dëkk yi loolu tax na nit ñi mënatuñu dem mënatuñu ku nekk da nga toog fi nga toog boole si am na sax benn moment boo xam ne dañ ne woon nit ñi nañ sax toog seen kër bu kenn génn loolu mooy que dafa mel ne dafa amul lu nekk si biti di xuuxal nit ñi di leen tere ñu génn di leen tiital ba kenn ñemeetul dem fenn tax na hôtel yi nga xam ne ñoo nekkoon di recevoir yi nga xam ñoo nekkoon di jaay tukki yooyu defatul dara waxatul dara mu jënoon ñu tëj ñoom it seen i bunt toog fi ñu toog loolu nag li mu mooy ñeenti weer yi daal defoo leen benn ñeenti weer yi toog nañu amul benn activité kenn liggéey kenn produirul dara loolu mooy ñeenti weer yu improductif bu dee France yoo xam ni kenn amul benn recette kenn gañewul dara kenn liggéeyul dara kenn deful dara donc kenn amul dara. tey frontières yi tijji na euh, frontières aériennes yi pour le moment. frontières yi ubbi na mais nañ ci def ndànk hmm. parce que lépp ubbiwul. parce que ñëpp gis nañ ni que daf dañ koy def. par étape ay par étape. parce que euh, li ñu jëkk a def mooy yi ñu jege comme dafa am ay accords yu ñu lié maanaam ñu naan ensemble muy wax CEDEAO ñun fa lañ bokk dafa am ay loi ak accords yu ñu lié yoo xam ni feebar bee tax ñu tëju. mais waruñu woon tëju ndax boo seetloo accords yooyu day wane ni que dëkk yooyu yëpp benn dëkk la. ak espace commun. ku nekk waroon nga am sañ-sañu déplacé wu dem fu la neex mais feebar mooy indi lu bees loolu donc dafay nekk loo xam ni dafa bett ñëpp daal suñu kaw ba moo tax ñu jël ay mesures exceptionnelles mesures exceptionnelles mooy ñu tëj d'abord taxaw xool seet seet ndax lan la feebar bi di demee ak lan moo ko yóbbu. lan lay évoluer loolu il fallait que ñu toog loolu moo indi loolu léegi nag dem nañ 4 mois dem nañ ba commencé xam. lan la exactement nan lay dox dañ ubbi ndànk-ndànk. taxu koo wàññi de kaay ba léegi ñu ngi am. kaay ñu ngi yokk mais dafa am li ñuy wax ay. façon yu bari la. am na cas communautaire. naan wàllante bi nga xam ni dafay jóge ay dëkk dëkk. am na ay cas importe yi nga xam dañuy jóge si àll ba ñëw ndaale ko ak cas yoo xam ni sax doo xam ku la seen liggéey bi moo nar a yokk importé non du ko yokk. mën na ko bañ a yokk parce que li ma la wax ni rek situation bu taxee dafa am ay mesures exceptionnelles jël maanaam autorités yi ak jël nañu ay mesures yoo xam ne dañu bëgg a freiner loolu parce que boo seetloo suñu liggéey bi xëy na li mu doon indi mooy li ñuy wax cas importé mm-hmm. mooy ñi jógee bitim réew di ñëw mais cas importé boo ko xoolee mu ngi gën a wàññeeku cas communautaire yi ñu gën a yokk te loolu du suñu liggéey ñun ñi nekk ci biir réew mi ñoo koy def parce que comportement nit yi la parce que aussi ni muy wàllee si bare xam nañ ko. kon xam nañ ni que nit ñi seen bopp ñoo koy wàllante si bi ndax négligence wala euh, a neex def loola neex. parce que bu fekkee ni mesure yi ñuy wax. ñu koy wax mesure barrière ci mm-hmm. tubaab. parce que c'est une terme bu ñu importé. ñu ko koy utilisé. il est devenu universel. Euh, mesure yooyu bu ko nit ñi respecté amaana wàllante bi dina wàññeeku. mais ba léegi ñëpp seetlu na ni ko mesures yi. nit ñi dafa mel ne respecté wuñ ko. Mhm. am na benn bàyyeeku bu am boo xam ne bii nit ñi si départ bi tiitoon nañu bàyyi mais dem nañu ba dañu commencé miin feebar bi. Mhm. dañ ko commencé ñeme ba nga xam ne mesures yi ñu doon jël jëlatuñ ko. Mhm. nit dañuy bàyyeeku. loolu mooy yokk mais importé bi très parce que mënatul nekk bu fekkee ni yow ña ko war a indi ñëwatuñu mënatuñ wax sax importé léegi ay cas rare ngay gis boo dégloo si rajo bi. tous les jours ñu la am na benn cas importe fu mu amee aéroport. mais tey ni ma la déggee ngay waxee dafa mel ni ba léegi euh, contentement xaw ma bu fekkee mën naa ko waxee noonu des na. par rapport ak mesures yi cest à nañu mais yéen dafa mel ni ba léegi vous restez sur votre xaw ma na laa koy waxee. waaw parce que euh, dafa am yeneen mesures yu ko accompagner parce que kenn ubbiwul totalement. ubbi mais def ay restrictions cest à ay yu ñu fi wàññi ak yu ñuy teg ay conditions bu fekkee ne da nga da ngay tukki ñu ne yow amoo droit dem fii fii nga am droit mais boo mënul def bul dem fa da toog ñun bu ñu sañoon ñëpp mën a tukki ku nekk dem fi nga bëgg a dem mais mesure yu ñu jël moo tax kenn mënul dem fu la neex ba noppi am na lu bees yu segu jëlaat nañu yenn mesures yoo xam ne léegi sax pour nga tukki dan la naan da ngay dem nga. def test def ay test wala nga dem nga def ay analyse yooyu ngay def dafa am coût. Mhm. dafa sax njëgu ba noppi li naan distanciation yi def si biir avion yi tax na ba avion yi sax. njëg bi dafay gën a cher parce que nombre de passagers dafay wàññeeku. te pour mu rentable il faut que ñoom yokk seen prix. dolli si que ñiy tukki mooy ñi nga xam ni dañuy ñibbi fanu dëkkoon wala fanu nekk wala ay ak exceptionnel ay autorités yu nu jël yoo xam ni mer na leen ñu tukki. Mhm. mais ku bëgg dem dellu si doo ko mën donc loolu dafay wàññi suñu clientèle. ndax day tekki dañu war a wàññi njëgu test yi wala. non seulement dañ ko war a wàññi xaw ma kan moo jël décision bi et état bi la. Mhm. mais loolu ñëpp gis nañu démb li xew Pasteur xaw ma ndax yëg ngeen ko ba ne ubbi nañu mais test am mais c'est de personnes yu dem foofu mais ña fa dem du seen ñàkk pexe tax ñu dem fa parce que dañ leen ko imposer mais boo seetloo ñooñu di fay quarante mille nen ñoom. est-ce que am nañu 40 mille ñuy fay si prix bi prix bi ba bi prix bi bi cher na gisoon ngeen manifestation yi fi amoon tamit si immigré yi fi nekkoon di kaas cherté ci eraayu billet d'avion yi. aussi dollee yeneen frais dolli si affaire ay aller simple ak yooyu prix bi dafay gën a cher. te prix bi bu gën a cher. client yi wàññeeku parce que effet de d'échelle la bu fekkee ni que prix bi yomb nit ñi day yokk bu prix bi cher nit ñu day wàññeeku donc li nga waroon jaay dootoo ko jaay. mais xam nga monsieur Guèye boo xoolee euh, situation bi maanaam daanaka feebar moo ñu ko imposé ba tax na fi mu toll nii. gars yi jël ay mesures restrictives pour bañ feebar bi law kon ni fa faral di waxee la santé avant tout. mais bu loolu weesoo aram sànq question bu mu posé au delà de difficulté yi nga xamante ni yow mi énuméré nga ko wax ko te mu doon ay difficulté yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mais lu ñu bëggoon xam mooy sur le plan financier. ndax mën nañu am un chiffre exact par rapport ak perte yi nga xamante ni euh, noté ngeen ko euh, pendant ces quatre mois yi nga xamante da ngeen nekk en léthargie totale maanaam doxul leen benn activité. l' autre chose mooy la deuxième question moo di yéen fu mu toll nii ana ni eh, ngeen par exemple buñ ko lalee ngeen waxtaan seen état bi a reprendre ba ku ci nekk war a gis boppam. merci loolu si la nekk bu fekkee ni affaire perte la ñun dañu def benn évaluation si départ. moo di na ko de manière sectorielle c'est-à-dire du agence de voyage rek parce que ñun dañuy liggéey ak hôtelier yi. Hmm. benn lañu suñu liggéey c'est complet. chaîne la ko dañu am suñu benn fédération boo xam ne mooy lëkkale ñaari association professionnelle yi nga xam ne agence de voyage ak hôtel bi ñu defee suñu estimation def suñu évaluation chiffrée et si base ay chiffres ANSD compté lu mat deux cent cinquante milliards de pertes. en quatre mois waaw. moom la moom la affaire bi indi mu si bien si hôteliers yi que si agence de parce que bu leen fàtte ni que tourisme moom mooy li ñuy wax deuxième secteur de l'économie ni muy représenté si pays bi contribution bi muy def si pays économie bi c'est environ 7 pour cent c'est très important pour jox leen benn euh, idée rek chaque année bon an mal an nous faisons plus de 450 milliards de chiffres de recettes apportées à l'économie nationale bu fekkee toog nañu période boobu nga xam ni liggéeyul ko tombé également secteur tourisme dafa nekk secteur bu inflation c'est-à-dire que du année bi yëpp lañuy liggéey du mm. année bi yëpp lay rentable boo ko calculé mm-hmm. li ñuy liggéey si année bi barewul parce que dañu commencé liggéey à peine saison bu ubbi début d'année mois de mars affaire bi ñëw mu arrêté ça veut dire que boo évaluer li nga jot a liggéey tuuti ak diggante bii ñëwaat balaa feebar bi dem yoonam déjà perte yi mën nañ ko à même plus que loolu benn la beneen bi mooy bi ñu ko defee il faut ñu nangu ko wax ko moo di que état bi toogul seetaan ma dès le départ ñëpp déglu nañu discours président de la son premier discours de la nation le premier secteur qu'il a cité mooy secteur touristique mm-hmm. ak hôtellerie ça que bàyyi na ko xel te bi ñu ko defalee suñu étude ba dund ko ba jox ko suñu mémorandum am na émotion lu mu jël moo di boole na nag ministre des finances ak ministre de l' économie ak ministre du tourisme suñu tutelle ñu waxte waxtaan ñu gisee ak ministre de la santé ba tëral benn doxalin loo xam ni état bi jël na ay moyen joxuñu ko nu daf ñuy lebal xaalis pour ñu mën a faire face. parce que li président doon bañ mooy bu ñu tëjee chômage day am. Mhm. parce que tey obligé bàyyi suñu emploi yëpp état pour éviter loolu mu ñu bu leen leen bàyyi. dama bëgg accompagner leen accompagner dinaa leen lebal xaalis ci condition yu douce ñu koy wax crédit hôtelier bu amoon avant. Mhm. parce que amoon na bu yàgg. amoon na mais c' était crédit investissement la moo doon da doon accompagner acteurs yi pour ñuy mën a investir davantage ci tourisme bi. ñii di yokk seen hôtel ñii di tabax hôtel ñii di defaraat seen hôtel ñii di jënd ay moyen logistiques pour agence et cetera et cetera transport ak yéen mais boobu la nii na ko jël yokk ko. def ko bu nekk crédit utile version Covid. moo di que nañ ko consacré ay besoin en fonds de roulement mooy que agence mën a jël loolu ak hôtel yi di ko fay ay salaire te di jël en charge seen charge yi nga xam moom lañ am au niveau des hôtels électricité courant euh, euh, ndox euh, téléphone et cetera gardiennage ko lu ko parce que hôtel yi ak agence yi bu leen tëjee bàyyi leen noonu. affaire yi naax sax léegi Cheikh Tidiane lu moom lan lan nga proposé tey jàpp ne bu ci état bi taxawee ngeen euh, waxtaan ci dina leen foofu laa doon jëm mooy que crédit boobu d'abord crédit boobu ñu teg mais am na yeneen mesures yu ko yu mu àndal parce que sur le plan fiscal tamit état bi am na lu mu def suspendre na yenn bu xaw a gudd bu raisonnable mënu wax exactement kañ lay arrêté parce que app bi jot na mais ñu ngi demandé ñu yokkaat ko parce que ku liggéeyul dara mun a fay impôt. beneen bi mooy euh, am na également d' autres mesures yu institutions yi jël comme IPRES pour cotisation sociale yi mu jëlee ko. en attendant parce que ku liggéey tamit doo mën a fay. ay mais yéen à niveau lan ngeen di def pour mu nekk loo xamante ne nii dina leen dimbali sa à dire euh, nit yi nu ñu daan dugg see amatoo leen ko. mais derrière war ngeen mën a am ay ay ay xalaat yoo xam ne def ngeen ko pour mën a jàppale seen bopp en attendant dara di sotti. merci tourisme local par exemple. Euh, merci wax nga ko loolu xalaat bu ñu amoon la avant feebar bi am. mais dañ ko waroon seet nan lañ koy mettre en œuvre mais léegi situation bi ñu ko imposer. le mm-hmm. que fi mu nekk nii ñi ngi xalaat ñi ngi démarrer d'ailleurs je ne sais ndax xool ngeen parce que am nañ benn euh, instrument bu ñuy wax ASPT agence de promotion touristique. Mm-hmm. ñu lëkkaloo. muy campagne taamu voilà ñu ngi xalaat nan lay def ba tourisme bi nga xam ni nit ñi dañu jàppoon ni que pour étranger yi la. Mm-hmm. dem nañ ba Sénégal yi commencé di intéressé au tourisme bi ndax liggéey bi ñu def sensibilisation bi def pour wan leen di que tourisme bi yéen la d' abord parce que bu dul Sénégalais yi Sénégalais ñooy accueil touristes yu ko étranger ñooñ di di di di gàttal du yi leen dalal ñooñ da leen si war a boole. Sénégal yi nekk fii daan jël seen alal ni dañuy dem étranger di vacances yi yóbbu alal réew mi ko génn wala lu leen ni que fii Sénégal ku nekk mën nga fi vacances mm-hmm. seen patron wax na ko si benn woyam mm-hmm. fii am nay noppalukaay donc mën na dem Sénégal visiter Sénégal. parce que Sénégal yu bari xamuñu Sénégal. voilà oh, noppalukaay yooyu day fekk ngeen investir ci ci sensibilisation beeg communication bi. nit ñi xam bu baax yéen site la ak fan la nekk offre touristique boobu. est-ce que si loolu la nekk si loolu la taamu Sénégal bi ñu la wax taamu c'est terme wolof que tout le monde taamu choisir le Sénégal. Mm-hmm. actuellement am campagne bu ñu démarré de sensibilisation de communication qui fait que ñu wone taaru Sénégal. sites yi nga xam nit ñi mën nañ fa dem te am na fi boo xam nit ñi mën nañ fa nappalikoo changer cadre duñ fa nekkee féex féexaay boo xam ne mooy gën sax étranger. mais mais monsieur Guèye Sénégalais yu bari ñuy dem mhm. dem pour vacances. dañuy dem mhm. mhm. fii am na fi lii yoo xam boo fa demee di nga nopp ba yëg ni yaa ngi nappaliko. parce que cadre bi moo ko ci pare. mais ar mu ko doon au delà même communication. xëy na peut être que fu ñu xaw a lajjee si sama xam-xam bu gàtt moo di dañu def ci bopp Sénégalais yi que lii di tourisme local aussi que ko war a def mooy nga xam ne da nga am un certain niveau de vie. parce que balaa ngaa nee da ngay dem noppalu ko yi xëy na dafa war a fekk nga lekk ba suur naan ba màndi ba am loo mën a dañ pour mën a découvrir sa dëkk. donc tey tey yii nii ñooñu ana ban pexe ngeen di lal pour que véritablement sénégalais ak bourse boo mënti am itam nga jàpp ni am na ay sites yi nga xamante ni xëy na war nañ fa mën a dem euh, même bu dul noppalu sax mais pour dem découvrir fa ñëwaat. waaw xam nga nag euh, dafa dul yomb bu ñu offrir Sénégalais produit boobu parce que tamit ay commerçant lañu dañuy investir. nit ñëw ñu dalal leen di leen dundal mais bu fekkee dund googu nan koy amee yomb na si ñun yombalal nit ñi ñëw mais aussi dinañ def de telle sorte que sénégalais moyen dina mën a am bourse boo xam ne bi dina ko ci caral même bu dee day fanaani benn fan foofu mu fanaan ko fa. Mhm. loolu am na parce que tout dépend si li nga bugg tamit. parce que fii dañoo am ay catégorie boo buggee dem hôtelu 4 étoiles mais lu mel ne da nga bëgg a dem hôtelu 2 étoiles wala une étoile. yow yaay choisir. Mhm. fekkee da nga ni man dama bëgg 4 étoiles il faut nga def moyen pour 4 étoiles. am na boo buggee moyen d'une am na parce que am nañ fi ay campement am xam ne classé wul leen sax parce que catégorie mais am na confort nit mën na fa dëkk. donc yow yaay choisir bu fekkee ni bëgg nga ni man dama bëgg dem si lu yomb. mais da ngay accepté jël lu yomb mais boo visé fu seer wala nan ma ko yomba des fois du mën a est-ce que du yéen yéen a tamit contexte bi ngeen nekk yéen a war a def effort réduction des prix pour attirer d'abord ñi nga xamante ne mooy clientèle bi nekk fi au niveau local peut-être doo koy xool nag naka ngeen ni def pour euh, booster waat les choses mais bu ngeen bëggee fixer prix yi foofu rek teg ko fa Cheikh Tidiane du ñëw man du ñëw hmm. euh, xam nga fixation boobu prix yooyu taamu nanu année nekk li ñu tuddee woon basse saison nga xam ni période mooy période bi nga xam ni période vacances au Sénégal. période euh, tàngaay la au Sénégal parce que tubaab yi la plupart touristes yi temps seen lu doon ñëw te bu tàngaay bi ñëwee dootu ñëw si période boobu ñun taamu noonu doon di wàññi prix yi. des tarifs promotionnels comme on dit Sénégal yi xëy na sensibilisation bi si waroon ak publicité bi si waroon xëy na daawuñu ko def wala Sénégalais aussi. au départ il y avait il y avait une idée bu nu amoon ci hôtellerie. mais mhm. idée boobu mi ngi commencé changé avant boo nee damay dem hôtel ñu loo fi wuti wala ñu am leneen loolu xalaat ci yow avant sax boo nee damay liggéey hôtel ñu xalaat lu tax ngay liggéey hôtel. Mhm. mais léegi idée boobu mi ngi commencé changé les gens vont de plus en plus fréquenter les hôtels mais on a essayé ba nga xam ni sénégalais moyen bu buggee dem hôtel mën na dem bu ko jaralee. mu dajale ñaari fan si xaalis muy dépensé mën na si dem hôtel. à peu Sénégal budget à peu près. ça dépend des mm-hmm. parce que catégorie xam nga. mën naa la jox exemple ni la am na hôtel yoo xam ni yëpp yamuñu. am na hôtel yoo xam ni boo amee vingt cinq mille francs. nga am nuitée di nga dem si hôtel nga dem si nuitée di nga am nuitée di nga am petit déjeuner. au moins qualité de service bi. qualité de service aussi ni ngeen di mel ak étranger yi bu ñu yegsee ni ngeen leen di joxee gëdd ak yooyu. am na si yu bëri yoo xam ne loolu loolu du si du si personnel ça c' est le Sénégalais en général ak accueille à sa façon les Français mais au contraire dans les hôtels on les a tellement éduqués yi benn la que mu nekk étranger que mu nekk sénégalais yow boo nekkee sénégalais boo ñëwee toog ak benn étranger à côté même traitement ngeen def. Mhm. on va pas vous mukk loin de la donc amul différence bu ñuy xool entre client étranger ak client local ñun ñëpp ay client la. au contraire ñun dañuy def de sorte que client étranger bu demee day yóbbu mais client local tamit day yóbbu. Mm. donc bu kontaanee dina fexe ba yeneen client ñëw mais bu kontaan aussi dina empêcher yenn client yi ñëw loolu du suñu intérêt donc defuñu loolu mosul nekk donc ñun li def mooy de sorte que client bu duggee mu kontaan bi génn. ñuy mm-hmm. dugg kontaan buy génn kontaan. Ah. loolu service bi ñu koy def ak assurance bi ñu koy def parfois da koy jaral sax mu génne xaalis mën na dépenser bu bari du ko yëg. ndax ni ñu koy traité mais boo dépensé tout sa xaalis ba noppi ñu maltraité aussi duñ ko yëg. résidence. boobu mm-hmm. lii nga wax ni yëpp si si si dëkkuwaay bi la. Mm-hmm. fa ngay dal na ngay nekkee et tout mais offre touristique du du loolu lekk waaw au delà naka ngeen di def tamit parce que nit ki du dem rek pour xanaa tëdd nelaw yeewu lekk il faut qu'il y ait yeneen affaire yoo xamante ne dina ko mën a peut-être attirer dans la zone wala fa muy nekk et tout. loolu boo boo léegi ma waxoon la hôtel wax la agence voyage. foofu la question daal may intéressé intéressé parce que agence waaye loolu mooy rôle am mooy organiser séjour touriste. Mm. hôtel yi moo koy dalal fa lay fanaan mais fanaan ak lekk comme ni nga ko waxee mais agence waaye moom mooy organiser séjour am séjour am mooy di nga fanaan si hôtel mais di nga def leneen di nga am yeneen activité dana mm-hmm. yóbbu ngay def excursion yóbbu ngay def circuit safari yóbbu ngay def yeneen thème mm-hmm. jeu thématique ak yooyu mm-hmm. donc ay découverte loolu mooy rôle agent loolu dañ koy def dañu proposer ay sites yoo xam ni nit ñi buñ fa demee dinañ mën a euh, bëgg ci seen séjour bi ak seen sortie bi boo exemple mu la mën a jox moo demee Saly mooy village bi gën a xam à côté am na fa ay sites ay zones yu nit ñi mën a gis yoo xam ni dans la journée boo ñëwee loolu ngay fàttaliku sa séjour Rombal Bandia boo fa duggee agence boobu moo lay organiser pour nga dugg fa. moo mm-hmm. fay def am na li nga découvrir. Mm-hmm. lu bare bare bare fa am na yenn sites y a des zones yoo xam ni leneen moo fa am ma demee Lac bi à côté yu mu fa gis am na fay spectacle am na yu fay gis yoo xam ni. mais mais alors man man peut-être que man euh, li ma bëggoon poser mooy on a l'impression que le tourisme bu ñu ko waxee Sénégal rek. les gens pensent à Saly alors que ça va au-delà de Saly il y a la basse Casamance il peut-être euh, les chutes de dans le Kédougou entre autres oui, même dans les régions yi nga xamante ne xëy na sax amuñ yenn yenn yenn ressources naturelles yi mais quand même am na ay sites yi nga xamante ni buñ ko valoriser nit ñi war nañ fa mën a dem ngir amal yenn seen i activités ay sites mégalithiques aussi am na Sénégal aussi. xam nga euh, tourisme dafa bare ay façon am na lu ñuy wax le tourisme de loisir a Saly. Mm-hmm. c'est mm-hmm. na tourisme de découverte. boo demee Casamance tu découvres am na tourisme mémorial boo demee ay Sine Saalum bi nga gis des mégalithes loo demee saint am na tourisme culturel euh, historique boo mhm. demee Gorée c'est un tourisme culturel historique aussi donc bare na si facette yi yow yaay choisir li nga bëgg def mais loolu yëpp am na fi. loolu yëpp valoriser nañ ko tout dépend de la demande du client. am na fi parce que boo déggee. Casamance bi sëñ bi foog ñu ñëwaat si yow waaw parce que am na yeneen tamit si la bokk. Mhm. sinon mhm. poos yi du am daal. <laughs> bàyyi ju dem seetaan publicité affaire télévision Futur Média Aram Touré ak ganam ci soir d'info. jërë ngeen jëf euh, Cheikh Diop ñu dellusiwaat euh, suñu gan di Cheikh Medoune Gueye euh, jiite syndicat des agences de voyage et de tourisme au Sénégal bëgg naa xam yan agence de voyage nga parce que bu ñu nee syndicat tamit bu ëmb agence yi yan agence la yéen ñëpp la wala déet que en général agence de voyage bu dama bëggoon euh, indil tuuti leeral syndicat agence de voyage en fait association patronale la donc c' est les patrons d' agence de voyage. ñoom ñoo regroupé créé un syndicat. boo ma mayee sax ma wax la ni sunu syndicat bi bi ñu ko créer yàgg na yàgg waaye wax moom la waxee ni euh, depuis 1964 dañ ko créé. d' accord ay tubaab a ko créé woon. Sénégalais yi ñëw ba yor ko léegi. mu ëmb ñaata syndicat jamono alors du ay syndicat ay agence de voyage. agence de voyage bépp bu am licence le ministère tourisme jox am nga droit nekk si biir parce que association professionnelle la léegi nag boo seetloo c'est un métier libéral. Mm-hmm. cest à kenn du forcer kenn pour mbokk c'est la liberté d'association képp ku yaakaar ni mën nga ñëw si association bi te mës gis gis sa bopp. mën a défendre ses intérêts matériels moraux mën nga ñëw condition yi pour bokk si jafewul li ma la wax mooy condition première mooy nga am licence rek am une existence légale mën a accepter li statut yi wax agrément intérieur et donc on regroupe depuis lors la majeure part des agences waaye dafa am agence ak agence nag am na ñoo xam ne dañuy ubbi agence waaye pour organiser ay réunage du ma ni bokk si mais ñun képp ku bokk si fekk na nga am possibilité def yeneen activité mooy am nga licence bu lay permettre nga def lépp à la fois mooy jaay billet mooy organiser des circuits mooy organiser des excursions mooy organiser des colonies de vacances mooy organiser des voyages yàgg na ñaata agence kon ah mënu moo wax exactement ñaati agence parce que mat nañ une centaine parce que léeg-léeg agence yi dañuy dox yii ñu tëj doo ko yëpp lii changer activité yi ñii nekk en veilleuse ñii def leneen moo tax Sénégal bari na agence bari bi nga xam ni ñëpp. nekkul syndicat jiite agence normalement kay yi war nañ koy réfléchir. pour xam exactement nañ ko am nañ ko on est environ au moment où je nekk nañu sans une agence de voyage mais am na si ñoo xam ne ils sont pas fonctionnels. ci contexte bi la corona wala bien avant. ci contexte yi un peu avant parce que ils ont peut-être dana ay difficultés yoo leen permettre ñu connaître wala ñu nekk ci leneen. d'accord mais toujours est-il que seen existence légale am na te ñun loolu lañu set parce que li ñu soxla mooy dajale le plus grand nombre être un lobby un moyen de pression sur les partenaires mu a accepter collaborer ak ñun et un cadre de réflexion pour mën a avancer le tourisme bi. ak avancé loo métier bi. Ah, relance euh, touristique euh, dina baax tamit ñu xam yéen taxawaay ban ngeen ci am tey lan ngeen déroulé comme feuille de route ci ci li nga xamante ne ci la jëm naam bu dee comme li nga wax sànq vol yi progressivement la ñuy ñëw yaakaaruñu mu am rëcc. fii ak diir waaye au moins yéen lan ngeen tëral. daal ne ci ngeen fas yéene doon wax naa la ne métier bi dafa bare ay lu nu ma def wax naa la ñi ñii day jaay ay billets d'avion ñii day organise ay événements hmm. événementiel comme ay circuit ñii day def di transport touristique donc tout ça ku nekk ak activité bi nga xam moom moo nekk sa activité principale mais ku nekk mën nga def lépp à la fois léegi nag euh, dans ce cadre là xalaat nañu ni billet d'avion bi fu mu nekk actuellement sooxe ndax fermeture frontière mais ñu ngi réfléchir et programme commencé na ko sax mooy programme bi ñu bëgg def ak ASPT mooy fexe def tourisme local. merci c'est vendre le tourisme local. ah loolu moom mooy actuellement film bi si loolu nekk. merci beaucoup Cheikh Medoune Gueye le secrétaire exécutif euh, permanent du syndicat des agences de voyage et du tourisme au Sénégal on passe à la page publicitaire et juste après.